point de presse bi nga xamné ñu ngi koy défé fi tay ci Ngeekoox ñu ngi ko bëggona défé feulé di Mbour devant le stade Caroline Faye mais compte tenu présence bi nga xamné police yi mobiliser nañ leen ñu ñëw fa en force empêché ñu ne fi kenn du fi taxaw wax té loolu aussi ay question politique kese la ñu dàq ñu fo moo tax tey ñu ñëw fi ba Ngeekoox ngir bëgg ko fi défé loolu dañ ko bëggona léral leeral askan wi di leen wonné ñun xéxuñu xuloowuñu dañu jàpp ne ay ndaw ñu nekk ci réew mi ànd ak le président Macky Sall dem ba muy metti tey bu neexee kon war nañ ci jariñu loolu moo taxoon ñu ne dañuy daju buntu stade Caroline fay wax d'une mañeer très responsable ak ki nga xam ne mooy suñu leader waaye nag ay politiciens dem wax ak police ba ñu dàq ñu jëlee ñu foofu moo tax tey ñu ñëw fii ci Ngékoox mais ndaje bi du woon dara. lu dul d' abord remercier le président de la république jaajëfal ko tatagal ko ci li nga xam ne nii mu ngi koy gérer lii nga xam ne mooy bi di mbas mi nga xam ne am na biir Sénégal ñu tatagal ko ci gërëm ko ci moom ak gouvernement parce que ni mu ko jëlee liggéey bi nga xam ne def na ko ci ba nga xam ne foo dem ci àdduna bi ak ci réew mi yëpp ñu ngi koy rafetlu ñun ay jeunes yu bokk ak moom parti ñu bëggoon ko ci su remercier aussi féliciter ko ci mais aussi nag lancer appel ñi nga xam ne nii doomi Mbour ñi nga xam ci ñom lañu ñu bokk ñi nga xam ne suñu askan pour que li nga xamné ne nii ay mesures barrières nga xamné wa keur Docteur mom lañu diglé ñom aussi vraiment ñu gor góorgóorlu ci ba sammo ak mom ngir aar seen bopp mais aussi aar seen askan bu ñu wéer ci loolu nag ñun ñi nga xam ne ay jeunes républicains du département de Mbour nga xam ne le président de la république bokk nañ ci ndaw ñi nga xam ne ñoo ko njëkk woolu wóolu njëkk koo gëm njëkk gëm projet de développement bi nga xam ne présenté woon na ko Sénégal ànd ak moom te ba muy metti nag xeex fépp foo xam ne soxla nañu fa ñu jiitu fa bépp élection boo xam ne mas na am département bu mbuur mosu ci féete ginnaaw te loolu lépp jeunesse bi moom moo ko defoon ñun ñu tey ñoo daje toog ne dañu seetlu depuis président Macky Sall faloo ba tey mat na juróom-ñetti at kenn mësut ñu dégg ñu wax ci rajo kenn mësut ñu dégg ñu coow kenn mësut ñu dégg ñu wax lu safaanoo ak li nga xam ne ñor na le président Macky Sall mais nag dañu naa luy jot jot na ginnaaw dee juróom-ñetti at bu passé ñu ne mandaa bi mu ngi waaj a jeex jeunesse départementale de Ndour nekk fi mel ni ñoo xam ne dañ leen a fàtte nekk fi mel ni ñoo xam ne seen i noonu lañ nekkal nekk fi mel ni ñoo xam ne nii bokkuñu ci Sénégal lu ñëw ñu fàtte leen ca du emploi du formation du financement te kat ci biir ndaw ñii ñu nekk am na ci ñoo xam ne ay ndaw yu qualifier lañ ndaw yu am ay diplôme yu kawee kawe lañ fu ñu leen yóbbu ci Sénégal mën nañ fa servir seen dëkk mën nañ servir seen askan am ci ñoo xam ne tam ay jeunes lañ seen métier yenu yor mën nañoo liggéey am na nañu métier mais amuñu moyen ñooñ ku leen financé ñu dem am ci tim ay élèves ak i ñoo xam ne li ñu bëgg mooy formation bu dëgër ngir suba ñu mën a jariñ seen askan ñooñu nag ñoo tax tey ñu toog fii ne lépp loo xam ne wax la jëf la joo xam ne war nañ ko mën def pour que le président de la république dégguñu nañu ko def loolu rek moom moo taxoon ñu toog fi di fàttaliwaat le président de la république ne ko ña nga àndaloon démb ñuy say ndaw dëkk daal le département de Mbour boo toogee ba ci yàgg sa xel dem ku mel ni fa xamet seen ñu koy ñaanal yal na yàlla suuf fal suuf ci kawam war nga jesuwaat xam ne le département de Mbour bokk nañ ci ñi njëkk a sa xeex ñi la njëkk a gëm ñi njëkk a ànd ak yow ñi nga xam ne njëkk nañ bàyyi seen bëgg-bëgg ngir topp la ci sa bëgg-bëgg donc ndaw ñoo ñoo joppawaat tey di wàkkiirluwaat ci yow di la wanaat ne c'est des jeunes ñoo xam ne ñu engagé wu lañ jeunes yu la gëm lañ jeunes lañ yo xamné ñu am ancrage dans l'alliance pour la république lañ mais tim jeunes lañ yo xam japp nañ dañu wara a ci ñi doxal réew mi loolu mom motax ñu ñëw fi tok té dañuy waxtaan ak yow lépp lo xamné ne nii mën nga koo dimbalee jeunesse bi nga dimbal leen ko parce que mérito nañ ko niko ko jeunesse yeneen réew yu aussi mérito loolu dal lañu amon tay luñuy wax ci teunk diko wax ak le président de la république ngir mom en personne mu jëlal li nga xamné ñu koy wax mu jëlal ko boppam parce que nag yàgg nañu wax mais daawuñu waxe nii ci ñi ñu war a waxal te mosuñ ñu dégg tey nag toll nañ foo xam ne moom rek mooy ki nga xam ne moom la ñu war a mën a waxal mu dégg ñu suñu jàmbat ak suñuy jooy mu mën ñu ko fajal responsable bi wala be moom moo fi nekk ñëwuñu fi tim ne dañuy wax ci responsable bu Mbour tey dañu ñëw ngir wax ak suñu njiitu parti suñu njiitum réew en tant que ay ndaw yu ko xeexaloon xeexal ko nag ba nga xamee ne xeexaloon le président Macky Sall jafe woon na moo tax tey ñu ñëw ci di wax ak ñoom lii wala mën nañ jàpp ne ay responsable la mais dès xamuñu kan la ak kan moom moo nekk ci ginnaaw di tudd turu nit tooñ lay niru te ñun nekkuñu fi ngir tooñ nekkuñu fi ngir jàmbaarloo ak benn responsable bu dëkk département Mbour ba ñu waree wax ak ñoom wax nañoo ak ñoom li ñu dese mooy wax ak le président Macky Sall moo tax ñu jàkkaarloo ak le président Macky Sall ngir wax ak moom amuñu problème ak kenn xamuñu nag ban intérêt nit war a mën a am pour fekk ñu fa ñu doon bëgg a defee suñ point de presse mu fexe ba jëlee ñu fa ñun loolu vraiment jaaxal nañu lool mais nag ñu ngi wàkkirluwaat ci président de la république bi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu njaboote wax ji ñuy wax tim wax la joo xam ne ci moom lañ ko jëmale te jaaraluñ ko ci keneen nag moom rek la ñu mu géreel ñu ko